leen wax na tey fii ñoo ngi si Medina ñëw ci ngénte Assane Assane Bongo mooy tudd doomam macha allah mu tuddee ko sang-sang yi Seydina Mouhamed ko tuddee Assane dañ koy jox nag micro bi mu euh, nuyu mbokk internet yi ñu dugg ci waxtaan bi Assane nuyu naa la. ah sama jigéen sama xarit kii xew si jamono macha allah fa tubaarikàlla fay naa la bég ci yow di rafetlu seen teewaay di leen ziar di leen dalal nag. ñoo ngi ndokkale si bés bi. ay Seydina Mouhamed. waaw déggal loolu sallallahu alayhi wa sallam bëgg ko rek ba mu jeex muy gën gi mbindéef yaakaaruñu kenn ku dul moom ma ne pour pourquoi pas muy sama waay moom rek laa yaakaar ma jur doom ne tuuf tuddee ko waaw noonu la demee. tey mbokk yi am du jàmb yi ñëw nañ tey lan nga yëg. waaw contentement rek contentement rek bég trop di wane nii lii mooy wane nii di demal nit ñi am na solo. bu nit ñi xewlee nga demal leen yéeg leen faale leen def benn vidéo rek wala feeñ ci benn télé rek taxul ngay jaay rëy mbaa ngay jaay loo xam ne nekkul waaw danga war a oyof wàccee sa bopp bu waay bu lu waay xewle nga yëg ko dem ku am anniversaire woo la dama bëgg nga defar ma vidéo ma defar la gratuite may la ko waaw. Assane tey sa mboq yi dañ la seede la rafet ndax nee nañ buñ ne diw baax na dañuy laaj mbokkam yi tey ay kàddu yu rafet moo fi am am nga jom am nga diine am nga lislaam njeme nga njaboot tey moom kàddu yu rafet lañ fi dégg fii tey. waa ndeysaan man dama naan damay tëggi xew ñu woo ma reer sax ca xew ma man leen suur naa parce que damay joxe dépense sama kër joxe lépp macha allah madame dafa reer yu baax yu yu ngéwale léegi sama doom yi xale yi bu ñu bu ma yéexee programme bu ma guddee ñi bu ma naajee ñëw du ñu reer ñeen ñi noonu la de def ba nalaw moo tax loolu daf may metti su ma ñëwee seen yaay yàq reer bi ne yàq naa ko reer leen ba dee du ñu reer yow la ñuy xaar ba nalaw war a xëy jàngi léegi loolu daf may metti moo tax bu ma demee xew sax lu mu guddi guddi dama ko fay bàyyi jël sama fay ñibbi dem reerandoog ñoom bu dee añ ma añandoog ñoom. kasaalika bu dee ndékki it noonu laay def ak ñoom amu lu dul ñoom lu ma am bokk kook ñoom nit ki amoo lu dul sa njaboot amoo lu dul sa famille ah kon waroo toll fenn di lekk di leen fàtte man de sama philosophe lool la du ma lekk dara bàyyi leen mbaa may am dara naan xaaral ma lekk ko rek garaawul déedéet xalaatuma ko yàlla xam na ko des fois sama yaay naan ma garaawul amul solo lii du dara lekkal nga jëndal leen ñu lekk ba suur man leen duma ko def mënuma ko mënuma ko duma ko mën bilaa digganteeg madame ndax moom it dégg na fi kàddu yi rafet tey sa digganteeg sa jabar. waaw sama jabar macha allah muy Kole aawa yaay boobu ma naan ko aawa yaay mooy sama aawa mooy sama yaay daf maa muñal jéeg jàmm njëriñ boobu daf maa muñal tabarkàlla macha allah jigadiw ma bi may jël soxna 2008 mënu woon dara xaw ma woon dara aw ma woon dara. liggéey bu dëgër sax aw ko woon moom mu muñool ma bàyyi ñëpp gëmma gëm te yàlla tax rek ne Assane mooy sama jëkkër bëgg na ma yiir na ma naa sëy ak moom fas yéene nag ñëw sama kër sëy si macha allah tabarkàlla jéggi am ak njëriñ boobu di ko gërëm di kontaan ci moom lool sama aaw boobu nga xam ne aw ma fayam moom daal nee naa ko yàlla na ko yàlla bàyyi ak man bu ma yàlla bëggee yàlla may ko gudd fan ak wér bàyyi ma moom ak njaboot gi. ak mbooloo mu jullit. sa diggante Cheikh Ahmed Tidiane Ba ndax gis nañ fi waa CATB. kooku kenn du moom barke Seydina Mohamed bu lépp taxawee gannaaw yàlla lépp mooma moo may woo jox ma enveloppe yoo xam ne bu ma ko tijjee damay tiit kenn du Cheikh Ba tabarkàlla naaru lisandoo yi borom social yi ki président Macky Sall wóolu ba mu jeex Cheikh Ba bëgg ma nag lu muy def Assane fu mu war a dem alors Assane suba dama war a ñëw bërëb sàngam na nga teel a ñëw wax ko gaañe ma teel a yeewu sangu solu woo gaañi ne leen DG dafa war a ñëw bërëb sangam tabarkàlla ku la yëg noonu kooku aw ma fayam Pape Amadou Sarr DER mi nekkoon ex DER tabarkàlla di ko gërëm di ko sant aw ma fayam macha allah kenn du moom Mass Thiam UCG sama waa ji Mass mi nga xam ne fa kàlla kenn demul ba ko moo kooku nee naa ko aw ma sa fay réew mi tamit amuñu sa fay président Macky Sall ko ne gis na ni jamono yi la ko yokkal ndombal tànkam ndax réew mi ni mu setee ay poubelles yu baax mu indi jëlee ko Europe indi ko fii tabarkalla yoo xam ne Europe ci télé bi lañ ko daan gis macha am daal yàlla na ko yàlla fay tabarkalla moom it aw ma fayam. Assane tey duñ la téye da nga xewle waaye lan ña ngay remercier. di leen remercier yéen ñi ngeen xam ne fa tubaarikalla lu réew artistes yi fu ñu mënta yegg gannaaw yàlla Bour Gueweul TV moo ko fay yóbbu Bour Gueweul mu sell mi Bour Gueweul tabarkàlla jamaa noir laa ko tuddee nee naa la buur xaalis moo naree jëndee xeesal mbaa topten zen yàlla na réer sa yoonu mar sama sama waa ji kenn du yow yaa ci mën fuuf lii la yàlla dogal sa yaay dala ñaanal sa baay gërëm la buur je suis très peur de la ton sa Dieu vous sa Dieu vous waa dëgg du neex dafa ne si ñun. yëg doo ma en français li nga yëg waa dëgg du neex aujourd'hui c'est catastrophe c'est excellence de la ordinaire aujourd'hui je suis vraiment content on se capte sa xaay. ay orchestre bongo maana ku nekk ak may woo am bongo Ousseyn Mbaye macha allah démb rek kii mi ngi may woo Babacar bongo di gërëm ñëpp bongo famille sama gars yi may àndal ñoom Mansour. waa Mboubeen famille di gërëm ñëpp bàyyiwuma kenn bongo maan yëpp tey bi fii tey dana wàcc. waaw tey du yomb. si kanam. waaw à tout à l'heure on se capte je te tiens de la courant. ziar naa delloo ziar xoolal mbokk yaa ngi jongo ma def sa bi balaa may balaa may commencé waxtaan bi sañse bi ku ci génn ak maquillage beeg bopp waaw sañse bi doom sama xarit moo ma ko ñawal moo jéem dëgg du neex moo ma génnee fi sama chéri sama xarit a jaar ci bopp bi ak maquillage bi Khady Diouf baax gore ñàkk ak ñaan dëgg du neex. macha tey ngeen ngeen de seen doom. Euh, sa jëkkal tuddee ko Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa tey la nga yëg kontaan rek déggee sama micro ku ne dégg nga lu baax ku ne wax nga lu baax si si Collé ak sa jëkkër nee nañu sëykat nga muñkat nga te loolu yombul ndax sëy artiste yombul lan mooy sa secret. waaw ah, sant yàlla rek moom moo ma rek ndax sëyu léegi moom neexatul bu ma téyewul woon waaw ah, duñ fi toog tey ba ñu am suñu Mohamed ni macha allah. sa digganteeg sa borom kër mi Assane. rafet rek am yërmande bëgg ma ma bëgg ko ñu yàgg yàlla nañ yàlla defal jàmm famille bi aussi sa côté wax nañu lu baax côté Assane aussi gërëm nañ la sa relation ak famille bi. mention spéciale sama goro yaayu Assane mooy sama yaay mooy sama lépp baax bëgg ma téye ma def ma ni ay doomam yi mu jur aw ma ku dul moom loolu yëpp tamit sant yàlla bu wér waaw. Euh, euh, ba tey rek maa ngi ci waxtaan bi euh, lan ngay dénk xale jigéen ñi sëy ndax yombul surtout maanaam ngay seen artiste lan nga leen di dégg. ah ñu góorgóorlu rek xam solo toog sëy rek muñ déggal seen jëkkër sëy seen i doom topp ndigal bàyyi ay tere rek su ko defee rek macha allah day baaxal rek. Mouhamed macha allah nga jongo ma benn benn petit coucou rek looy wax Assane lu neex. sama xol sama xarit ma jural ko Mouhamed dëgg du neex damay sëy ba dee rek foofu toj. sëy rek ba dee. sëy rek ko dama toog a doomu ndey Assane Bongo nee naa doo wax Assane Bongo di ko si seppee ndax foo leen gis rek da da koy gis si wetam ñu nekk di liggéeyi donc c'est normal ma dégg ko sama micro nuyu naa la. fay naa la soxna si maa di la jox sa wàccuwaay. Euh, di la ñaanal kenn la ak jàmm waaw. Mansour tey yéen a xewle tey moom sa doomu ndey moo xewle mu tuddee na xale bi Seydina Mouhamed. sallallahu alayhi wa sallam euh, laaj nga ma ci ku ma a tontu muy euh, rakk ju baax doon rakk ju am jom doon rakk ju nangoo liggéey rakk ju ñeme kër macha allah tous di bo Assane bu ñuy wax ci moom fii la ñuy fanaan. parce que Afia Bongo dafa yaatu Assane la maam Samba Malick Sène Ahmed Tama. Malick Sène loolu dafa yàgg. lool du tey maa ngi koy nuyu de passage. maa ngi koy nuyu Ouma aussi de passage di ko ñaanal foofu mu ne ci Paris yàlla na ko yàlla defal jàmm mook ña fa nekk ñëpp. Euh, Assane daal mention spéciale barke Seydina Mohamed neex na àndal euh, xol bu rafet la yor te it euh, yéene ñëpp jàmm wax dëgg fa neex yàlla nit nekk nag. ku si nekk am nga sidit boo xam ne bu ko nit laalee dina jëngu mais à part loolu kenn du moom wallaay lazim waaw yéen a ngi liggéey ba léegi ba léegi Afia Bongo moo ngi existé wala. Euh, Afia Bongo nag euh, léegi euh, man maam Samba la ak Ahmed mais teewul suñu dajee day rafet moo tax wax naa ko fi léegi ragal péete day xañ a wërsëg lépp lu ma mën a am mooy que nii maam sàmba Assane ñu nekk ci jàmm man loolu rek laay dox. tey jii loolu bu amoon tey tey su ma deewee damay tàlle jéem a essayer comprendre di midi au quatorze heures laajuma lu ñu jot lu ñu jotewul de toute façon mooy que ne ñoom nañu àndaat doon benn ñu ànd ci jàmm mooy loolu ko wallaahi. léegi madame nag seen jabar ndax léegi Assane wax na ay kàddu kàddu yu rafet ci. illaaha illallah kenn du moom ñett lañ Collé di seen mag non Ulay Mbay di moins mooy seen mag Ulay la Collé ak Solange. muy sama jabar jabaru Mam Sam mooy Solange Ulay Mbay mooy jabaru Mam Samba Kolle Ndione mooy jabaru Assane xam nga natt munta weesu yàlla jox la jëkkëru artiste wala nga am jëkkëru docteur heure bu ne mun nañ leen fëgg woo leen mais lu ñu guddee guddee guddee bu ñu ñëwee même façon même facette même relation la ñuy gis kenn mësuñu dégg ci dara ci ñoom ñu ñuy muñal te yàlla rek tax ba ñuy dugg ci ñoom daanaka dara amul ñu mel na war a mel nag ki ñu war a bëgg a bëgg ñu ne ñoom gisuñu ñenn ñun la ñu gis du ñu sëyal tey yàlla rek tax kon lii bu amee mën naa ne ñoom ñoo ko fi xaar ba tool bi doonul dara garab yi saxul meññiwul tóorul tey bu garab gi meññee ba dara desul lu dul witti ñoom ñoo moom seen tool ñoo koy witti kenn du ñoom ñoom rek la ñu bëgg. merci beaucoup. merci à toi. <laughs> premier njëkkee nga def sa orange buub sa doom ñu tuddee ko Seydina Mouhamed maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay ma lay ziar. sa sa góor. ah Assane cër dafa neex mais Assane daf ñu njëkk a taxawu suñ papa fi jógee léegi yàgg na Assane mooy suñu taaw taxawuñu jàppale ñu iir ñu uuf ñu amul rakam bu ma taxaw ne Assane lii déedéet li ko war suñu mi ngi koy def man maa ngi say de mais sama néegu say Assane ma ci fekk di ma jox di ma jàppale lu ma xewle balaa ma Assane moo fay jiitu. taxawu ma jàppale ma mënu ma ay waxam parce que aw wax dañ koy ñaanal rek taaw doomam taaw ba cat maa toog uuf te rusuma ci benn yoon ndax macha di ko ñaanal rek du fan ak wér njabootam gi yàlla ko yàlla teg loxoom mu toog ba ñu koy teral di ko toppatoo du teral ñun ñii te xam na ne ay doom dañ ñu teral ndax daf ñuy teral moom dafa xam suñu tëdd ñu ko jox. macha allah. sa digganteeg sa jabar ndax euh, ndax léegi wax nañ ko fi lu baax lu ne. nga kooku sama femme kooku sama jabar la baax na yaru na tey na ñun li ñu doon koy jox ku ñu yëg la ñu lijjanti jox ay milliards te yëgoo di ko lijjanti mais koy daf ñoo yëg koole su ma ñëwee néegam. laay toog lu ma neexee ñaari ventilo la may taalal wallaay asim ni ma da nga amee tàng da nga ragal tàngoor ci ma topp doo c'est pas possible lu ma xawle kon lay jiitu yaru na teg ci macha allah mënuñu koo fay di ko ñaanal di ko ak asat yàlla mel ni asamaan ak suuf ko ci àdduna incha allah rabbi merci sama yaay mooy yaayu asat yaayu sànni tuuti ndax wax ji mënu la ñàkk ndax asat asat dafa baax asat dafa baax dafa bëgg ay jigéenam asan taxawu na ko lu neex ay jigéenam neex na asan kii lu ko neex ca CMB asana ko xam lu ko naqari asana ko xam muy guddi muy bëccëg nag fu mu ko nee alo mu ne ko loo soxla bu ko doon dëmmi ji sax dana ko dëmbi indil ko moo tax dama koy gërëm di ko sant asan fu ma gisanteeg moom damay nabatu bu dul loolu da ca poosam bu koy di ma jox du du xool day tibb rek jox ma fa mu jëm yàlla na ko gënal fu mu jóge jàppale na ndeyam moo tax ma gën koo fonk taxawu na ndeyam man bu ma taxawu woon te taxawul ndeyam du ko faale waaye dafa taxawu ndeyam jàppale ay jàppale ay maga ay ay magam jàppale ay rakkam jàppale ay ndeyam jàppale ma man mi jàppale ay sëram fa mu jëm yàlla ko gënal fu mu jëm yàlla fo lépp lu mu bëgg a am yàlla na ko ko sunu borom defal lépp lu mu bëgg a am rek sama xol dafa fees ndax Assane dafa sonn ci njaboot gi mooy taaw waaye taaw gu mu nekk rek. taxaw na lu ko raw Assane lu neex Assane la lu naqade Assane la man tey jii waruma fi woon nekk dama waroon voyager waaye kii dama ma nee Assane jabaram wasin na laa ko ni daay ñëw danaa bàyyi lépp te ñëw ndax Assane daf leen taxaw xadi baa nga ne léegi mu ñëw te moom it loolu lay wax ay frère am yëpp ñëw nañu ndax Assane dafa baax yàlla na ko yàlla dimbali kàttanal ko jox ko lu muy jàpp lu mu gën a jàppee ay njabootu njabootam lépp man mënumaa wax sax ndax xol bu fees merci beaucoup lay ñoo ngi lay fay lan nga si Assane man gorom laa jabaram sama rakk la tey ñu gis kàddu yu rafet yu ñu ko seedeel fii ba muy tudd doomam macha allah mu tuddee ko Seydina Mohamed euh, sa digganteeg Assane. Assane moom sunu goro la sunu jëkkër la yoo xamante ne bi dañ koy bàyyi yàlla rek. di gërëm yaayam mbaajo xam ne kolle mii di jabaram biñ ko koy jox xale bu tuuti la xamul dara yaay ñanga bi nga xam ne moo ko yor yaayam joxoon ko ko ba mu feree mu boole ko ay laytaayam jox ko ka mu yor ko kolle mën naa ne xamul yaayam yaay ñanga la xam yaay ñanga yàlla weddi yàlla na ko yàlla xaar àjjana yàlla suuf euh, si kawam yaayam bi ko jur tamit yaayam tamit teel a nelaw Kole daanaka moom tam xamul yaayam sax ndax bu yaayam di génn àdduna moom xale bu ndaw la daanaka ah, daanaka Assane moo ko si loxoy mbaajo la màggee si la gimmeekoo ñu koy gërëm di ko santa lu neex Kole neex na ko lu neex mbaajo lu neex eh, Kole neex na mbaajo dañ leen di bàyyi yàlla rek yàlla mi nga xam ne mooy fay yal leen yàlla fay ndax Kole xale la xamul dara dara la xamul. waaye kii daf ko jàpp kam doomam bi mu jur moom mbaaco asantam lu neex ko la neex la ka mu bëgg mu bëgg la gis da ngénte quatrième doom mu di ko teral nii bëgg ka mënu ko paase mbëggeel mënu ko paase waaye nag dañ koy bàyyi yàlla li nga xam ne mooy fay yàlla na ko yàlla fay amuñu fayam ñun Mbathio ak Assane amuñu seen fay ñun famille Collé amuñu seen fay. Collé tey tey koo dégg micro mu ne la jabaru Assane nit ku baax la xale bu baax la xale bu muñ mu a muñ ndax sëyër artiste yombul waaye moo ngi toog rek. kenn déggu ko kenn xamu ko sax. waaw noonu la loolu lañ ko yaree loolu la xam famille am bi mu juddoo muñ lañ xam. xamuñu fay xamuñu gàddu ndab di dem kenn mësu si fay kenn mësu gàddu ndab di dem sëy ba dee muñ ba dee loolu lañ xam loolu lañ ko yaree si la juddu si la naam ba si la taxamte kon donc bu ko defalee ñu mu jaaxal waaw merci beaucoup maman waa kay jërëjëf ko lom social Bour Gueweul dama ne ko lom social di def lu baax damay def intermédiaire ci moom jëmm ji dafa sagal Médina dëkk Médina te xaywoo sutu Médina loolu jom kese ma ko mu judd fi na màgg fi nekk un grand homme nekk un homme qui rend les choses les plus futiles et utiles lu tax naan goto goto yàquturi bay xam naa ndaanaan la kii mooy suñu fierté kii mooy sunu entrepreneur kii moo tax tey opérateur économique tey am jom am fit tey ku jamono la dee muy alaaji Papa mi la xam ni liggéeyam ci valeur liggéeyam ci constance li Youssou def tey Youssou Ndour def demb ca jam ñaajo Papa Laay dafa loon dafa loon ko fii ci Médina embauché ay jeunes des jeunes talents des jeunes qui a la constance ku am jom taalibe Serigne Mbacké Sy Maodo Malick bi ki la xam loo ko wax te waxu Alaaji Malick waxu ko dara kër ba jàngi dafa jàngi waaye bu liggéey jotee dafa wuti teranga jàppale ay nawlem a Assane Bongo mu xewle muy doomu réew mi Assane Bongo mu xewle muy le berceau de l'humanité des Bongo man mu ne déet fi ma dëkk fa ma sosoo laay ànd ak ñoom waaye Papa Laay dañ koy gërëm ñun maintenant suñu gërëm Papa Laay du ay gor Papa Laay doomu day Kara Moto Papa Laay doomu Baar papalaay doomu ndeyu buur géwël papalaay doomu ndeyu tous les jeunes transitaires papalaay doomu ndeyu tout tout le monde kii mënu sagal baaba jëmm ji mënu sagal kii moo ànd ñun mu ànd ñun liggéey bu muy def mu liggéey mooy def damay ànd ak samay naloo damay ànd samay xarit papalaay jël tous les jeunes de la Médina kon na Assane mi xewle Assane su xewlee Ndakaaroo yëngu Assane su xewlee Assane Assane su xewlee Ndakaaroo xewle Assane yarwam Assane baaxam Assane valeur am Assane constance am waaye Assane yëg doomu aadama moo tey ñëpp tey teel a ñëw teel a yeewu teel mun bëriwul waaye ku la teel ku la teel a ni. sa sa jikko ak sa valeur moo tax ñuy teel a yeewu. la euh, la nga waxoon pour Marème Faye Sall Marème Faye Sall rey reyam bu neex ba loo may loolu mooy sa valeur ak sa juddu Assane kon sa bés Ndakaaru la. sa bi bésu senegal la waaye sa bi tous les jeunes communicateurs traditionnels du département Dakar dans l'APR Yaakaar képp kuy géwal bokk ci réew mi naw na naw na sa bés bi ndax na yaa baax su yaa baax ndax tami da nga wax lu rëy ne Cheikh Amadou Tidiane Ba dafa lu mu la defal kon lycée Ndoye atumaan ba baayam oto mbay seeni jaraaf mi la xam ni keroog ba keroog ba mu génne ne xëccoo mairie keroog benn géwél desul benn géwél desul géwél yëpp ko topp ndax dañ topp ko du alal bi du xaalis bi du sañ-sañ bi du baax bi waaye juddu bi ak jikko bi moo tax ngor bi moo di topp ko. kon Assane nee na gërëm na Cheikh Ahmed Tidiane ba bu baax a baax di gërëm doomu ndeyam Karamoto Sëñ du Baar bi la xam ne doomu ndey papalaay bàyyi papalaay bu ndaw di koy gërëm di gërëm ñëpp di gërëm ay baaba transfert di gërëm ñu ñëw ak ñu ñëw di gërëm El Hadj di gërëm baaba. di gërëm caam production mi la xam ni ba mu dëkkee ci comme léegi yàqu fi dara lu ma am bokk na ko doomu aadama yi. tey seen frère moo mooy tudd tey moo woote moo xeloo mi Assane. waaw Kole man Kole laa bokkal man ak Kole ñoo bokk Kole sama rakk la sunu kër la jógee sëy si fii si kër Assane waaye macha allah Kole baax la amul benn problème a kenn macha allah léegi rek ay gorom mi ngi doon wax ñu ne amul ak kenn benn problème bëgg gorom xam ko gorom macha allah ko jàppale Assane nag Kole ba mu sëyee ba tey kenn xamul lu mu am lu mu amul musul ñëw sunu kër kalaane wala Assane ñëw kër gi kalaane kenn xamul lu mu am ak lu mu amul te kër te kenn ku nekk fa nga sa da ngi fay sonn yaa ngi fay daj loo xamante gor rek moo la fa bàyyi bu du gore da ngay daw ñëw sa kër ñëpp di xam loo am ak loo amul waaye Collé ko am sutura yaayam ba mu koy bàyyi mi ngi nekk liir yaayam di jaayee marché Gueule Tapée sama yaay di jaayee marché Gueule Tapée yaayam dëkk ba yoof waaye yaayam day ñë day jël sareet taa yooyu marché Gueule Tapée bii sareet ngay jël boo jëlee bu jëlee sareet wàccee Collé ba tëjal ko ko moom sama yaayam jaayi jël sama yaay dem jaayi fonde sa marché ba ñu bokk looloo indi Kolle sunu kër waaye Kolle ak ñun bokk ñu dara waaye dëkk bu baax ak mag ñi moo indi Colle sunu kër mu dem ba yor fa ba màgg fa ba yaayam gaañu ñu may ko Assane mi tey mu sëy fi sunu kër mi ngi fi si ak 23 ak benn la koñ bi la jóge ñëw sëy si fii waaye Colle macha allah tamit du ko baax Assane ñu noo ko yar presque waaye Assane am benn problème du dóor du saaga du ko xas te lu mu am jox ko ko lu mu na ne ay moromam ci mel ne ay moromam li li may li may li may li metti kay mooy yaayam li mu li mu fekkeewul dara rek même sama yaay tamit noonu sama yaay tamit dafa gaañu moom ma ka may yoroon kolle moo tamit fekkeewul si dara dara dara di leen ñaanal yàlla rek yàlla bi nga xamante ne moom moo xam li gën yàlla na leen yàlla defal xam li gën si ñoom defal leen suuf si sedd si kenn kaw en tout lu baax nees Allah